Réumi 24 TV dal leen ak euh, jàmm détenu politique yi nga xam ne rek ñoom ñoo nekk 100 mètres yàgg fa lool ñoom ñoo ñi rek ñoo préparé organiser rek li nga xam ne rek mooy njàngum alxuraan ñu koy amal nekk suba ci mercredi gii nee na nag dañu fas yéene ñaan rek ki nga xam ne moom mooy président Ousmane Sonko yàlla génne ko ci situation yi comme ñoo ñoom ñooñu rek ñu ngay gën di wane seen volontaire waaye ñu ngay gën di wane seen patriotisme ginnaaw rek ba nga xamee ne ñoom ay prisonniers lañ ñu ngay jàng alxuraan kuñ koy jàngal ñoo ngi koy jàngal ki nga xam ne rek moom mooy Ousmane Sonko mi nga xam ne grève de la faim la nekk ci principal jamono yi moom mi di Ousmane Sonko nak ko nit ñi ngay wéy rek di gëna a seen cofeel ci mom ginaaw rek mom mi di Ousmane Sonko ba mu koy won ci détenu yi rek ngir ñu amal ab grève de la faim waye à la fin it moom it nee leen ngeen arrêté rek mom muy continuer di amal ab grève de la faim bo xal bo xamne rek tay ji rek la tollu ci 31 jours bo xamne rek mom mi di Ousmane Sonko man ngi koy wéy du ko amal kon boko ko détenu yi nga xamne rek ñom ñoo nekk ci prison bu rëbës dal suba ak jamm ci mercredi bi fas ñene ñu def ab jàngub alcorane rek dal di ko jangal ki nga xamne rek moy di dooru Pastef bi di président Ousmane Sonko kon boko ñi ñu yàlla na yàlla nangu ñaan yalla na leen yalla gën ci réconciliation génne leen fi ngeen nekk yéen ñi nga xam ne rek yéen bëgg Sénégal di ay patriote